manifestation bi nag taxu ko woon demee noonu ca stade Amadou euh, bari euh, waaye nag ñoom euh, ña bokk ci plateforme boobu ne nag ñoom seen yoon ci dañoo fas yéene kon daal di wëyal kon li nga xamante ni moom mooy xeex bi ñuy xeex ngir daal di samp fi ci suñu réew ay leeraange jëmee ko ca nañu yoree kon suñu ressources yu ci mel ni pétrole beeg gaz bi. Salif Sow. file lañ joxe woon dox daje tey ci buntu stade Amadou Barry ñetteelu yoon muy dem di wuyu ji ci woo tepp aar lu ñu bokk guléet ci moom muy dem di ko fekkee feneen foo xamante ni biir Ndakaaru ca Géejawaay di fi Aliou Sall nekk maire mu doon loo xamante message la bu dëgër ci gis-gisam suñ déplacé wu tey manifestation bi tey nga xam leen tudd ci mbir mile nekkul na mooy tax ba manifestant bi solu couleur Sénégal di vert zone rouge bàyyeeku loolu day pour l'instant moom dama gis ni rek benn fa benn point bu ndaw la quoi dañuy dañuy xaar rek ba justice def lu mu war a def parce que dem na dig wala parce que waat na rek parce que man gëm naa ni boo demoon rëbës ba yóbbu fa kaamil ñi fa nekk ñëpp dinañu waat. leer na ci moom xeex bi dafay wéy noonu it la leeree ci professeur bi nga xamante ni histoire ak géographie lay jàngale. ni ñu yoree Sénégal suñu ay ressources dañ ko war a leeral. ni ñu yoree Sénégal. sur le plan économique ne lépp jaar ci yoon ni ñu yoree réew mi tout court ñu koy doxal nañ ko doxal te teg ko si yoon. wàllum kaaraange gi amoon na doole bu baax bu fekkente ni ñenn ñi fës nañu di alkaati yi ñu leen di gis ñeneen ñi dañoo raxaloo woon ak mbooloo ma tas ci biir dëkk bi ñi nga xamante ni ñoo wuyu si woon ci woote bi seen lim ñi nga xamante ni ñoo ko organisé takk nañ ko ci ay téeméeri téeméer waaye police nee nañu motuñu ñetti téeméer Salif Sow Guédiawaye ngir rajo Futur Media.